Seynabou Ka Diallo di xale bu jigéen bi doon jàngee ci université Gaston Berger bu Ndar te ñu rey ko l'observateur nee nañu léegi tey ñu am takk bu wéer ci ki def jëf jooje ubbil yéenekaay bi gendarmerie bu jam ak yore enquête bi jàppaguñu ci kenn waaye am na koo xam ne yéenekaay bi nee nañu li leer ba leer danañu ko woolu mu di xale bu góor bi doon génn ak dem si yàlla Seynabou Ka Diallo ndax nee nañu moom waa ji woo na xale bu jigéen bi ci téléphone am quelques laata muy réer téléphone xale bu jigéen boobeet l'observateur mi ngi ñuy wax ne enquêteur yaa ngi koy wër waaye ko ñu gis ci xët mu njëkku libération mbir meneen mu yémeeti benn parent bu ñu naan Mariama Mané moo jàpp ñaari doomi jëkkëram kenn ki ñetti at ka ci des am ñeenti mu jël leen jëlug buum yeew leen ci ba ñu ne ngodd di leen dóor ak saaga filmé yëf ya jël vidéo bi yónnee ko yaay xale bi mbiree siiwee ci la ko sandarma yu ñooroy demee jëli journal bi nañu moom ndaw si nee tax mu def loolu moo di yaayu xale yi sëyatul ci kër ga tas na bu yàgg waaye terewul fa mu toog la toog di yëngal ab sëyam moxtal combat di defante bu rëy Sud Quotidien nee yomb ci pouvoir bi du yomb ci opposition bi question de vie ou de mort lay doon ci ñaari wàll yi wàll wenn mu di pouvoir bi seen jiit di Macky moom la journal L'As xëy ci xët mu njëkk ba dañuy wax ne li ñu naan potum biir néeg ca la Macky Sall waa kër mi ca Fatick ñi amul lu leen neex ci ñi mu tànnoon jiital leen ci élection locale yi weesu ñoom la dajale woon doon waxtaan ak ñoom laas nañu te du woon moom rek ndax soxnaam di Marème Sall ci waxtaan ak ñoom ngir bëgg ñu ñëw ànd ak Macky Sall jàppale ko mu liggéey réew mi direct ci news nañu booba fekk na Fuuta toj na ba mokk rumbux maire bu njum di Cheikh Omar Anne moo fa doon sargal jigéen a njum yi waaye wane na fa ne doole doxul jàmm démonstration de force pire yéen a pire yéen a kaay bi na nañu moom lañ fa gis mbooloo mu bari ba jéggi dayo mbooleem fu force vive nekkoon ci Fuuta rek bàyyi nga la nga jàppoon dem wuy ji njiital nouvelle dynamique de l'alliance pour la république journal bi nañu ci élection législative yi ñu weesu moom maire bu njum ministre enseignement supérieur moo jiite woon liste coalition Benno Bokk Yaakaar ci département bu Podor Podor ba ñu gàñe fa lu rëy moo waral ba ci législatif yi ñu jëm jigéen ñi nee nañu nawoon fa woon nañu ko jiital ñu toppaat ci ginnaawam suur soi nañu teddungal débbal la Cheikh Omar Anne woote woon ci Fuuta waaye la fa gis ci mobilisation ci jamono joo xam ne ay weer rek de suñu digganteek élection député yi li moo di ceex na da wane na signal bu fort ci ne kenn du ko jam naa ni ci Fuuta journal L'Info Tribune Vox Populi L'As ak Abdoulaye Daouda direct news mi ngi ñuy xibaar ne wote législatif yi du fa sedd ne am na kuréel gu ñu fa taxawal mu di convergence patriotique pour l'émergence suñu réew te waa di Lamine Gueye jiite ko ñoom kuye bu bàyyi leen xel bu baax tribune xëy di bàyyi xel ci fukki yi Macky Sall def ci bopp réewum Sénégal li mu ca jànge ba tënkee ca moo di ci 10 yi Macky Sall jiite gum Sénégal mission non accomplie moo di ab bilan maanaam li ñu doon ci président Macky Sall ba tax ñu faloon ko 2012 ci fukki at yi mu defagum ci bopp Sénégal wane na ne mi ngi ciy def lu am solo ne pont bu Foundiougne bi mu ubbi keroog rek doy na ci firnde ndax pont la boo xam ne yàgg nañu ko bëgg yàgg koo jooy ki mu tudde pont bi di Nelson Mandela Maïmouna Sissoko Khouma ne dafay wane fi mu teg Afrique teg fa africain yi teg fa unité africaine yépp lu ñu yàkkamtee xam bokk na ci fan la Sénégal di mujjeek Égypte ci qualification coupe du monde Qatar 2022 entraîneur équipe nationale talaata ji di ñëw ci stade Abdoulaye Wade ba ca jëm ñaajo mu ne na vert son rouge gi takkar ci grade yi léegi ko nañu el tactico di Aliou Cissé ngi teg pression supporters yi ngir ñu summi west yi tekki karawaat yi sol may équipe nationale bu Sénégal ñëw stade support équipe bi équipe ba kenn ca footballkat yi mu di Abdou Diallo léegi ko ne nañu forfait na élongation adducteur lam ba tax dina toog lu mu gàtt-gàtt ñaar fukki fan yu mudul football Eumeu Sène defati na la daanee B52 ci 4 appui la ko daan